kii arbitre baa ngi waaj a sifflé dox ci diggante septième combat de la soirée Zazu Ndiaye ak Thiaw Gouy Gui Thiaw Gouy Gui moo la féete ndijoor Zazu Ndiaye moo la féete càmmoñ arbitre bi sifflé na ña ngay lewaatoo Thiaw Gouy Gui Zazu Ndiaye ña ngay lewaatoo aj na gar door na Thiaw Gouy Gui door na reculé Saasou Ndiaye caw guy gi caw guy gee ngi bëgg a cokkaas bu mu ci koom dóor na ko da xeex ba dóor mu daan daam caw guy gi Saasou Ndiaye perkit boobu dalul xeex nar caw guy gi Saasou Ndiaye combat bu nar a gaaw sekar na sànni na caw gudi ndaw gu gi Sassou Ndiaye ndaysaan taw dox ci kawam door na na saako yi door na ko ci géew bi Sassou génn na saako du yomb ñoom ñaar caw guy gi ndeysaan ak Zazu Njaay caw guy gi ak Babacar ñoo bokk dëkk waa caw dañ loola ngay dëkk sore wu nooy dëkk de waaye daal xam naa ñu ngi bëre daal Zazu Njaay lay bëre caw këdd na ko léegi mu caw nag daa bëgg accélérer combat bi waaye Zazu ngi xool rek gis nga ku war a caw war naa tey pour war naa tey parce que nag bëre attaque da ngay xam li ngay attaqué est ce que attaqué xeex rek la attaqué daa war a nag song tamit waaw. jërëjëf Babacar Thiaw Gouye Gui Zazu Ndiaye Thiaw Gouye Gui nga dox ci ma may dox ci daa bëgg a xeex ak moom moytu jël coup Thiaw Gouye Gui Zazu Ndiaye da ngay xeex door na ko di perkit ndeysaan lu ma la waxoon Thiaw Gouye Gui Zazu Ndiaye. Jaw Gouy Gui Sassou Ndiaye lamb door faye ko tas Jaw Gouy Gui mu ngi attaqué waaye ni muy demee baaxul léegi taxaw na par force waaw mu jël mu jël tax gis wax su taxaw na gis nga gis nga gis nga gis nga li ma lay wax président ba lay wax day taxaw force bu fekkee joolo parce que attaque daa war a am ak précision attaque da nga koy teg ci yoon mais doo attaqué nii rek attaque da ngay attaqué pour. na Taw Guy gi ak Zazu Ndiaye Zazu dem na ci ardo ba ñëw Taw Guy gi daa bëgg a jeexalaat combat bi cokkaas na Zazu bañ na Zazu fernel garde bi da ngay léew rek ndeysaan Taw Guy gi. xeex bi teg ko ci yoon yéen ñaar benn coup dalu door na door na ko daw waaye saa su jaay daw bu ngi mel ni Rosaal lii doy na waar de Messi buy marqué waaye kii def nañu fi ak marqué Thiam kii yaa mën a daw laa ilaaha illallah waaw kii moom waay kii kay mooy mooy numéro ci daw ndeysaan daw na eh Zazu Ndiaye Zazu Ndiaye daw na daw na ba génn caw guy gi Zazu Ndiaye caw bu doon maa yow di nga daw bi mu daw baax na ci làmb caw guy gi Zazu Ndiaye gis naa mbër moo xamante ni comme joueur ñu lay dàq ngay daw ay waay Zazu Ndiaye daw na daw a daw a daw ba génn saakuy jàmbaar dawul dafa wuti doole wala kii daa daw pour ñàkk bu muy mujj Zazu Ndiaye ak Thiaw Gouye dóoraat na ndeysaan Zazu amul garde amul garde daw na jël tànk ba Zazu jël na tànk ba daan na ko Zazu daw na daw bi bëre bëre bi daan daan Zazu daan na moo daw moo daan moo daw daw waaw waaw lii waay la bëgg ñu laaj daw da nga jàmbaar daw daa wuti doole daa wuti doole doole wuti woon dëgg la am na doole daan daan na ndeysaan Zazu daan na daan na taw guy gi daanu ko jël bu la bett ndeke jàmbaar dawul dafa wuti doole